te amour am na yu neex mhm. mais am na yi nga xamante ne tamit parfois mu doy waar euh, ba jaaxal la mhm. am na koo xamante ne moom actuellement lim ñuy raconté mooy déception amoureuse nañ ko xool seetaan xam naa ni euh, du neex ñuy feete mbëggeel di ko euh, commencé noonu waaye ci la bokk kooku ñi nga xamante donc en 2004 lañ xamante parce que dañu amoon euh, bon ay amis en commun donc amis en commun yooyu noonu ñoom ñoo ñu am euh, présenté woon instant boobu noonu man maa ngi amoon ay 15 ans moom mu ngi amoon cinq ans donc moom laa njëkk am ci copain voilà léegi. ñu ñu bon ñu génn mu def ay un mois et demi yàlla def mu dem Italie en 2005 ma jàng jàng jàng ba am sama bac en 2012 moom tamit yàlla def bi ma amee bac moom mu am ay papier wam ñëw léegi nag bi mu ñëwee ne ma kat dama la bëgg tàkk dem seen kër diine et tout xam nañ ko dama a moom dañu génn léegi bi seen kër ji moom mu dama takk ma ne ko léegi mën na nga dem sama yaay nga wax ak moom mu ne ma d'accord mu dem sama yaay pour wax moom mais mu ne sama yaay wax moom ba pare sama yaay na ko wax après boo ñëwee bon ñu woo sama oncle yi woo sama rakk papa yi wax ba kale lépp jour bi mu demee sama kër di ak moom jour boobu noonu la ko yaayam ak papaam may benn doomu cousin moom bon euh, am a été un choc pour nous deux que man tout temps ay nit ñu ngi sama kër samay mbokk di ñaan sama yaay jabar may leen noo kii lay xaar ba sama yaay mel ma si ñëpp mel ma si may noonu garaaw xam nga ma dem ba sama yaay ak nekkaat ak moom si jàmm mais nee mooy may na continuer di génne ak kooku cinq mois la am wallahi la azim cinq mois la am waa ji ñëwaat si man di raam di jooy parce que bi mu ñibbee daa dem def choc ba ñu opéré ay tànkam ñu dàq ko fi mu doon liggéey xam nga yooyu yëpp dal ko mu woo ma téléphone di jooy naa man sama àq moo ko dal amaan ko fa ay millions te xamul sax loolu yëpp fan la jógee mu oo ma moo téléphone di jooy xam nga rek mais xool euh, am xoolu jigéen ak mu bëgg ñu nekkaat ñu continuer waat suñu relation bu ñëwaatee ñu xuloowaat bu demaatee ñu juboo noonu laa dëkkeek moom de mu am si jabar am si ñaari doom ba tey ni heure bu ma nekk ak dama lay takk bu ñëwee pour takk ñu xuloo li ma gën a marqué ci histoire yëpp xam nga c'est quoi mooy que man bi may génn ak mu xaw ma woon dara parce que 15 ans laa amoon mosuma génn ak copain léegi bi ñuy génn ma dem seeti ko. xam nga rek entre jigéen ak góor euh, ak góor nag nga baal ma ci kàddu bi ñuy flirté bi ñuy flirté moom ndekete man avant may ñëw si moom moom moom am dafa doon nelaw ba nekkoon di gént ba éjaculé man xaw ma si dara ma ñëw ñu nekk fa di flirté ndekete am taché na ma man ci sama tubéy xaw ma ci dara ma ñibbi ba mu def ay quinze jours ma remarque ay changement ci sama koox ma ne non attends man lan moom ma dal moom aussi mu am ay intuition parce que avant may ñëw mooy yowul après mu woo ma téléphone ne ma yow na yaa ngi gis sa règle ma ne ko noonu mu ne ma d'accord ma dem kër mu nekk fa sama yan dama naan waaw sa yaram bi de dangaa mel ni dangaa mel ni man comme xaandu ma dara après mu waa naa la boole ak sama benn xarit nga dem mu xoolal la pourquoi nga ko ma dem ci benn xaritam médecin kooku defal ma consultation ne ma dangay saw ma saw def truc machin yooyu yëpp ma def ko après mu daal di may piqûre bi ma piqûre ma ñibbi sama kër ma commencé woon di gis sama léeg-léeg man pour man dama amoon retard wala dara après bi ma commencé nag ba màgg ba am euh, am BFM ba commencé di jàng réellement woo SVT si laa commencé comprendre que ne loolu noonu avortement la en fait xam nga te loo gën di nekk mag daf lay euh, am traumatisé bi damay toog di nekk ak sama ay neveu xam nga may xalaat tey tey xale boobu noonu du du noonu en fait naka lay. naka lay mel quoi lan la may apporter. Aba ah comme la ko